amateur yi bu ngeen déggee lii xam ne làmb sàjj na bu ngeen déggee lii xam ne prince njiital PABC events moo woote te na mu ko daan defee di bégal mbokki amateur yi noonee la ko fas yéene defee le samedi 3 avril foofee ci arène nationale prince loo woote mu ne lutte simple prince loo woote mu ne lutte sans frappe prince loo woote mu ne ma galaa bu mag jàpp ko le 3 avril ci arène nationale mbër yépp fekk si ma takk seeni ngémb ma tegal leen 4 millions

mu ngi ci ànd ak sponsor yi ko yàgg jàppale ñi nga xam ne événement bu mu gëstoo gis leen seen ginnaaw muy waa seen Adja Kangu ànd ceeg sa copain ànd ceeg Aziz Business Compagnie lu ci mel ni Huile Jador ànd ceeg AB Technologie ànd ceeg Pro Auto ànd ceeg hôtel C Salim ca Lac Rose ànd ceeg Bosaya Imo ànd ceeg Alburax Automobile ànd ceeg SCI SBS Imo ànd ceeg Pro Family ma ne ko presse ku def lu rëy faaw nga am lu rëy le 3 avril yaa woote tegal mbër yi 4 millions préparel xam ne fu ne amateur dana fa mu ne ma ñoom amateur yépp li ma leen di ñaan mooy kuy ñëw na nga sa masque ñu respecter les mesures barrières lamb suñu lamb bu mu mucc ay